waaw tamit tamit tamit tamit tamit tamit tamit tamit ci Iba Tall bala ngay def waaye tamit tamit ci Iba Tall tamit ci Iba Tall ba asalaamaaleykum sama waa AICA béggee naa leen j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax yàlla na ne yàlla mooy sutura xéwal ak xaalis bu bëree bëri waxeen amin amin <laughs> comme d'habitude chaque vendredi wala samedi wala dimanche damay dugal vidéo maa leen ko waxoon def naa ko te dama koy defati dama gars yi aimé la vidéo balaa vidéo bi di commencé abonnez-vous fekkee yaa ngi may seetaan te abonné woon abonneel nga aimé parce que saa boo aimé damay gën a mën a am courage def vidéo di leen kontaan loo te xam naa ne man rek ngeen topp te man aussi yéen rek laay topp sama gars bu leen fàtte yéen seen bonus benn sama promo code 21F la saa boo jëlee di nga am bonus 156 000 francs naa ko bete bete bi surtout parti Dieynaba Tall yi non parti Dieynaba Tall rek laay teg tey ñu seetaan seetaanandoo ko parce que Dieynaba Tall dina taal réew mi waaw ki ératera Dieynaba Tall seet Dieynaba Tall mu gars yi comme d'habitude comme ni ñu ko daan defee noonu lañ koy defee waat ñu seetaan ambiance kër laay laay li Dieynaba Tall mii mun nga ma bàyyi ma toog sama kër bàyyil wax eh, mon bébé <laughs> ci loo nekk comment tu vas papa ñëw nga. maa fi ñëw nañu waaw ça va. papa yow sañse nga de sañseeti nga ci nga dëkk nag. namoon naa la papa ça va papa ñu Wah si jàmm. waaw Dieynaba Tall nag Dieynaba Tall nag tamit tamit tamit sama gars nak nag Dieynaba Tall mii tamit tamit tamit tamit. waa Even Prod dañ ñëw nëbboon Dieynaba Tall. seet tet tet tet tet tet tet man nañ seetaan du ma wax. yéen tamit tamit lii tamit even produit na bungin <laughs> na jena batal de kolen kolen siya siya kuna ni kolen jena batal yang gibi jau de yala yang si jam papa yang si jam bate di nga tema kara te ma to bude ni Wow. nga kara mana kara asa ni banyak kara asa ni banyak kara ke asa ni banyak kara de Kalau lan la Pape Sabaty dalal dama namul xanaa waa tamit tamit tamit tamit tamit tamit tamit tamit ina ba taal bale ngay dem waaye tamit tamit ina ba taal tamit taal tamit jërë ba taal bale ngay def waaye jërë ba taal bale ngay def waaye jërë ba taal bale ngay def waaye une pour tamit lii tamit tamit lii tamit mais jërë

mais xol len sumbul ñew fi nako xolal du ni ngay solo parce que xama tamit doole yamul deena bu ni ngay nuyo sa papa hein ah? li nga xam ni rafet sumul nak xewal rek lim sol da rafet de xana da yu rek way rafet na mom li nekko ci sax à l'aise bu do wu julli tay sol du yu li nga sol ni ñak na kersa ñak na kersa te xana nak yar nañ la fiñ la wara yaré yow yaa moom ne ñàpp ci sa yaram bi ni xanaa xamoo loxo lépp awra la lii rafet na lii du sax xale bu baax day am kersa dégg nga lii nga sol rafetul tey rafetul suba ah demal nga yëg nga summee ko nga woddu ji sër salaamaaleykum. salaam. noo def ma xam. ça va moom jëkkër ji geer la du ko nuyu. ça va. ça va ji geer la ko nuyu. te problème bi mooy moom li lépp moo ko indi moom moo ñëwoon ne Dieynaba Tall da ngay sollu kii def daf j'espère que yéen a ngi fàttaliku épisode boobu noonu tey mu ñëw Dieynaba xam nga Dieynaba yëngal kër gi mu ne ko tamit nag lii bu ko solo doog te rafetul lii rafet nag mais tamit da ngaa ko yëgul ñu xool euh, épisode bi yaay sumb la ñëwee ci gaale bi affaire yi gën a tar parce que ba Tall nag moom mérité wu lii nag sama gars yi. sa sama soxna. maam yi yooyu. takkal ma soxna. Eh, maam am nga wujju de. ci kon yëgoo ku ma koy yëgal. mère bi mën na ma man laaj lii la la. déedéet ba. maa ngi yegg maa ngi yegg maa ngi topp ma talu maa la léeg-léeg dafa ca jabar yi nan lay ca jabar te yëgu ma bi man mii. man waaw jël bi nuyu ko Sall la sant. Sall. ma ne la yow sant ba. Taal. si yoon bi. Taal. oh. yow Sall. mu ci kaw jërëjëf naa ko waaye. doon naa doon. dama marul. Jana na da mirit pasa wai. Jenaba tal numerit pasa. O dug van ne jena jenaba numirit numerit pasa wai tamit nak. Xamlen kita tamit lim lim si ci ginaawam tamit nak ki warul meritali. Nañ xol parti bi maire bi waxeek ak Soumboulou naan ko la moo tax sa doom takk jabar yëgaloo moo ko affaire yooyu noonu après ci laa comprendre que ne Soumboulou li doon bañ kii takk euh, ñeeño bi lépp naka ci yooyu yaay ji la. ci laa comprendre. xool leen Soumboulou lu muy gisee. loo xam ne mi ngi sama xol bi. ak ndénkaane bi ma dénkoon ak li ma waxoon yow nga sàllam tooru buur ka ji. Dieynaba Tall dara sa fa ko xoolal ñëw na indi jus まあ、でもな、そうかたまじゃがす。いや。あ。ああ。もちだそんで、き、じゃ、のばばにけんな。ばんだよく、もう、におい、もちだそんで。水面ってなな。ダメだろ、dia kelas minat itu. Mau kita eh, bayar pun cuma ini. Yang mana? Mam, lampung memang musuh mabuk belum dalam. Wow, wow, ada nggak kau tahu? xam nga sama yaay ni mu wax. waaw yow chaque jour nga nekkal ko sama nopp. waaw man xaw ma kenn ku dul yow yaay bi. yow sumb la wala sumb la ah, lépp li ma mel yow yaa. dañuy changé sentiment am sonn yaay pour lii bañ a am. waxuma ci dara. loo ci dara. yaay li may xeex genn wàll bi yëpp sama xel day nekk ci yow mënuma ci dara yaay. <laughs> alkaani lu ma rek rek la yaay. ndax rek ceebu sa guddi ji bi la day xocc but yow nga jur sa doom mu war takk dugg ci kër. yow ngeen wax ma ni ma taal man la tegal ci suuf. te ne ko taal lekk lekk coow. man nag Anak alkali yaay. waaw léegi alkali man jur sax sama kàddu. Alkali moom maanaam alkaati du Dubai dur daal. kon mau faham mu newoon la ne ba léegi mais man nga wax ak man war am te du ya? ko ya, aku nama ëpp na ma doole te bëgguma dara lu la métti. métti na ma bii de moom xamoo moo métti waaye bii bii moom métti na ma. dara ceebu sa guddi ji da yow ya <laughs> yow yaa def lii yow yow man ma waxanteeg yow la nga ma wax ma tontu la benn man la ñaar ah nga ko di ma nëbb ay waay ji fu ma jëm ak bi gàcce waay ay waay maam lu ma naqadi ah waaye la metti woon ko yàlla. ndeysaan xam nga man dama ñëwoon rek pour dama ñëwoon rek pour naan damay ñëw pour quelque chose xam nga ay kii mais il faut ma toog. bu toogee yàlla ko danaa ko dëbb na kuy dëbb ndox te du ma ko dégg nga wax naa ko soo. yow tëjal oh. ma sa gémmiñ. Thiénaba Tall tamit ne mérite pas ça sama gars bu ñu waxatee dëgg rek ñeen ñi nga xamante ni ñun Thiénaba Tall la ñuy topp ñeen ñi nga xamante ni ñu ci bëri Thiénaba Tall ñoo tax ñuy seetaan série bi xam nga bu ñu waxatee dëgg rek ba taal ne mérite pas ça xam nga ñun ñi nga xamante ne ñuy xeexal Thiénaba Tall dama bëgg ñu bind ci commentaire yi justice pour Thiénaba Tall ndax Thiénaba taal am jàmmam parce que Thiénaba taal mi yàlla dafa ko bind ni ko war a bindee dama gars yi dama bëgg ñu lire quelques commentaires ci séquence Thiénaba bii nii parce que gars yi dañ ko dagg dugal ko Instagram ma dugg ci commentaire yi ko mais damay ree ba tëdd ci suuf dama bëgg ñu liirandoo ko <laughs> ñu xool kii nee na kii forme bi ñàkk na kersa si sumaan kii nee na ku la ndaxa wépp <laughs> kii nee na yaa quelque chose qui tourne dans ma tête après kii moom lii moom ba jàmm la bii mooy ban séeri gaaw leen yow ba léegi xam ak séeréer yow yaa nelaw. kii nee na deux kër pour le cameraman <laughs> kii kii doole ma jox compte ngir yàlla daa am lu may leer daa am lu may leerlu quoi. <laughs> nee na kii de bàjjanam dàmp na ko waa kër keme waa kër jabaram war nañ ko <laughs> defal cagnotte nee na j'ai beaucoup de questions. kii ne ah tey moom je d'accord avec Mariam li nga sol mu ne ñàpp sa kaw jigéen da am kersa. C'est nag yow tamit dire. dëgg série c'est pour un ami ok souvenez-vous je vous promets vous que plusieurs personnes n'ont pas vu le pot de fleurs eh. rouges <laughs> regardez bien <laughs> du <laughs> xaama romb man kenn ma rek seytaane ngeen trop <laughs> mais lii ba jàmm la <laughs> na commentaire yi mun damay reeba sonn damay reeba sama gars yi commentaire yi su ma ko lii lii fi laay fanaan barki yàlla kon sama gars yi ba beneen yoon ñun bete bete rek la ñuy topp ñun leneen nga lat <laughs> sama gars yi si suma rek leen bàyyi ñuy rek